tànk borom ya tuuxaalis gàccim ga des tëmbul yaama masamba jur anta borom ya tuuxaalis gàccim ga des ñëwaat euh, ci beneen numéro Sénégal ak aaram euh, di di di càmbar rek xool aaru Sénégal bi ni muy doxee ah internet bi dinu seetaan dinu nu safoo ma leen di safoo tamit ah di bëggee ñëpp di bëggee banlieue bi di bëggee àdduna bi yëpp di ñaanal ñëpp jàmm ah, ñu ñëwaat ci beneen numéro Sénégal ak aaram aar bi ni muy doxee artistes yi ni ñuy dundee artistes yi ni ñuy nekkee seen kër artistes yi nu ñuy nu ñuy doxalee ah ñu ànd ceeg tey benn ndaanaan boo xam ne daanaka doon koo fekki fii ci këram fekk ko fii ci këram Malibu Géejawaay daanaka mu mu jóge fa sori jóge Japon muy Saliou nekk déw nekk doomu banlieue nekk doomu géejawaay mm. di ndaanaan woykat euh, dur nekk Sénégal def fi lu ne mm. tourné dem Japon liggéey di liggéey di dem di ñëw macha allah di ko ñaanal ah jàmm ak féex mu nekkoon fi nekk woy na lu ne woy na simb woy na mbapat mm. woy def na ay kilip def na lépp affaire bi yomb nag ñëw rek mu ma ñëwal kër ga donc di di di safoo la lumière du kër muy Tacko TV ah mhm. ànd ceeg Maodo ah ñu ngi noonu euh, Saliou ñu ngi lay nuyu di la siyaar di la ñaanal jàmm bisimilah laay maa lay fay dëgg la Saliou na mun naa la di nuyu Sénégal di nuyu monde entier dëgg la rawatina nag fi ñu dëkk muy géejawaay muy nekk suñu base nekk suñu lépp ñu def fi lépp waaw di naan gars yi na mun naa leen mais maa leen raw dëgg la na namm naa leen trop laay. dëgg la euh, euh, euh, mu ngi noonu Saliou ku ko ku ko gis di ko xam. Mm. mu nekkoon Sénégal fii liggéey fii lu lu lu lu doy waar. jóge fii dem Japon dem beneen dëkk dem beneen dëkk dëkk bu xamante ni boo fa demee daanaka day mel ni da nekk ci beneen monde. mu nekk foofu di liggéey gars yi di ko gis ñu ko yónnee ñuy gis ay joobam macha allah dëkk boo xamante ni ni temps bi dafa juutu heure bi dañuy nekk ñoom ci guddi la ñuy ne <laughs> dëgg la affaire bu gara bu doywaar bu yéene Saliou bu nu ma doon bu la doon laaj tey euh, Japon ak Sénégal lan mooy différence bi Japon ak Sénégal ci wàllu culture bi ngay def jëlee fii sa culture yóbbu ko foofu euh, euh, di ko di ko imposer japonais yi wala chinois yi di leen ko imposer di def say concert affaire yi di fees nit ñi di bëggee daanaka nag duñ dégg li ngay wax mais dañuy bëggee. ak mm. plaisir bi ngay wéyee parce que li gars yi ne lu jóge ci xol ci xol la jëm. nooy mm. dundee loolu foofu. dëgg la laay loo gis njëlbeen bi dafay metti ko dëgg loo gis commencement bi dafay metti dëgg la mais nit da ngay am ngëm-ngëm quoi. soo amee ngëm-ngëm rek loo dugg lu nekk dafay yomb si yow quoi. dëgg la waaw da ngay dem tey nga géej. xamuñ dara lu aar na da ngay dem tey nga géej après nga toogaat nga xaar parce que sunu sunu bagage lañ leen di. imposé quoi dëgg la dëgg la waaw léegi nag sans dépense yow ni ngay doxalee rek ni nga leen koy jaayee musique moom amul frontière amul frontière Youssou Ndour wax na ko waaw moo tax boo si nekkee daal gëm ko dëgg la nekkal si li nga war a nekk boo jëlee xaalis sax boo bëggee musique nga am xaalis yow investiral si musique quoi dëgg la nga dundal musique dëgg la après dina la mos a fay quoi maanaam ah. am na ñoo xam ne dañuy dundee musique bi mais dundaluñ ko déedéet musique da koy dundal dëgg la ngir mu soo ko dundalee après li lay fay moom si kanam quoi waaw dëgg la mooy mm. aar rek du biir day xëy wasin day xëy wasin doon na ko wax naa ko mm. léeg ma ni booy dem leen ngeen xool découvrir tuuti mm, yaa ngi Sénégal mais ku nekk fii ñëw e, e, mu mi ngi nii muy Saliou man nag damay soog a commencé ak moom daanaka ñu ngi woon Japon léegi xaaral ma del si Sénégal. Mm. Saliou nekkoon Sénégal. Ah. Ah, am fi ay jaar-jaar. Ah, affaire yi metti. ah mm. muy woy simb. Mm. li nga ci doon séentu. waaw man nag dama dama bëgg damaa bëgg aar ko oh, dëgg la dëgg la. bëgguma si sax. bu ñu bëri bëgguma ko quoi. ñu bëri dañ may tax wax ay invitation ak affaire yooyu mais. mais yow sama xarit nga quoi. am na ñoo xam mënoo leen bañal loolu. quoi waaw te loolu dafa yàgg na sëñ Tuubaa ku li xamee naag jaam waaw mais xam nga aar dafa dafa garaaw quoi ku nekk ak nu ngi ko nu ngi koy bëggee. quoi nu ngi koy dundee. même bu fekkoon dañu doon dañuy amee feneen xaalis sax. dinañ dañuy investir si aar. Oh, dëgg la dëgg la waaw ñun ay ñun ay artistes lañ quoi. parce que kër la quoi suñu kër la. dëgg la waaw man commencement bi dama bañ def aar. mais su ma nekkee suñu kër ñun ñoom ñoom ñoom ñëpp aar la def. yow da am ay frères yu. waaw yu def yu def ñu tëgg ñu fecc. dëgg la ñu xam sama maam mën a way. dëgg la waaw man nag bi ma toogee suivre tëgg di su ma woyee gars yi ne ma bàyyil nga bàyyil tëgg demal nga woye ci. dëgg la waaw mooy loolu quoi. yow maanaam bu la doon wax yow foo bokk fan la. man géew man Salim Ñing. waaw Ñing Ñing Géew Waly. Ñing Sénégal Alassane waaw. borom maamu seex yi. maamu seex yi waaw Séni mooy sama maam Alsaan mooy sama maam géwal laa nag. piir pire. waaw man géwal original laa. dëgg la waaw. dëgg man man géwal laa quoi. la sama maam dafa woy ba ñu may ko nit ak ay noppam. mu eh, ami jaam dëgg la waaw. yow kon faaw nga way <laughs> man tam bu ma bañee sax damay déggoo déggoo ñu ne ñu ne li ca li ca maam sët a koy jël moo tax Saliou dafa garaaw internet bi bu ngeen xoolee YouTube bu ngeen defee Saliou rek di ngeen ah, euh, ah, gis li mu ah, def Saliou di ngeen gis li mu def Japon Sénégal dafa nekk fii durus liggéey liggéey liggéey ba ba ba ba affaire yi yéeg mu ne xaaral ma dem beneen dëkk imposer leen suñu culture parce que tamit daanaka boo xoolee art bi fii Sénégal mm. hmm, yow boo ñëwee mën nga fee mën nga fee bañ a xamante lu bari mm. mais chaque jour affaire bi day avancé. Ah, day avancé day changé. Mhm. daanaka nag nga toogoon Japon lu bari. Mhm. lu yàgg te te mhm. ñëwoo fi. mais bi nga ñëwaatee nii lan nga gis ci aar bi mi ngi avancé wala mi ngi mi ngi mi ngi yoot wala loo gis ak gars yi ba xam ñu ngi liggéey. Hmm, war naa gën a mën a am ay tànk de. Hmm. maanaam hmm. instant bi day yoot daal intérêt personnel moo bëri quoi. Ah. nekk sa bopp rek. dëgg la nit moom xam da ngay da ngay def lu yaatu. dëgg la. waaw ah, xëy na nag waa xëy na nit bu nekk. waaw lu dal xelam rek. lu mu nekk rek jàpp ko rek moom moo dal xelam. dëgg la waaw mais man pour man war naa gën a mun a dox quoi. yow da ngaa gis ni aaru euh, Sénégal doxul ni mu war a doxe wala wala Sénégal moo doxul. doxul de boo demee seeti beneen artiste dina la ko wax. dëgg la daanaka nag artistes yi ma seet yëpp yow laay xam nga lu ma la wax <laughs> internet bi. <laughs> <laughs> artistes yi ma seet yëpp daanaka la majeure partie dan naan ma. Uh-huh. aar bi doxul fii. Uh-huh. mais lan moo tax doxul gars yi ñoo liggéeyul wala gaa yi danoo am danoo am ay yoo xamante ne nii dañ koy def te bokkul ci aar bi wala nu mu demee noonu. voilà xam nga aar boo juddoo rek nga nekk si aar. dëgg la yow bu lay fay sax doo ko yëg. doo mais boo taxawee fee di seetaan gars yi diw am na lii si aar man damaa war a am lii si aar. après diw ni muy defee aaram. dëgg la ah boo moytuwul rek di nga defee noonu aaram quoi. dëgg la te nit bu nekk am na identification am. dëgg la am na fu mu mëne quoi. dëgg la. léegi nag aar bi léegi boo xoolee génération bu mujjee jénn bu mujjee ñëw mujjee xew comme ñun. waaw ñun ñëpp ñoo niroo ni ñuy ni ñuy wooyee. ni ñuy wooyee maanaam loolu loolu suñ ko suñ ko xoolee maanaam ñi waral dem jàngi way dem jàngi cosaan ak aada bi. dañ dan cee jàngul daanaka musique bi dafa dafa xaw a nuroo nag. waaw léegi chaque jour nit woy loo xamante ni boo ko laajee du la ko wax. du ko wax dëgg la. laay xam nga lu ma lay wax. waaw <laughs> waaw dëgg la Saliou man bi yow yaay artiste bi de man. internet bi ñoom ni ngi may buux affaire yi te man <laughs> xaw ma man du ma woy kat. wallaay man du ma tëgg kat du ma dara. man nag damaa ragal a woy loo xamante ni su ma toogee suba bu ma ko laaj laajee ku mel ni laay. journaliste. dëgg la ma nekk fa di xaan di xaan. di xaan xaan koy wax loo xamante ni amul lu ma la wax si ay woy rek mbala ma woy ko rek soo ma ko laajee naa la ko tekki. dëgg la Salif ah. dëgg la loolu nag day am solo internet bi ak mm. artistes yi. Mm. ak euh, ñi nga xamante ni ñoo mujjee ñëw ñoo mm. mujjee juddu di woy. donc léeg-léeg nga gis koo xamante ni day woy woy boo xam ne laal foo xamante ni buñ la ko laajee. Ah, euh, doo ko mën a tekki. donc dalay loolu dalay wan ni la yow da war a dem jàngi. benn affaire tey nga dem benn dëkk laaj seen culture ku mel ni Kumba Gawlo sekk da koy def. day dem jël ay benn son boo xamante ni. da koy togg presque deux ans wala trois ans. dem ci dëkk bu nekk laaj culture bi. ñëw woy ko buñ ko ko laajee dina mën a dina mën a wax yow yaakaaroon ni booy jànguñu danoo danoo bañ a jàngi wala danoo bëgg xaalis. <laughs> mais lan moo tax ñi ñuy tuddee paa yi nekk fi ba tey. waaw musiciens yu mag yi nii dañu leen di war a ñaanal ñu gudd fan. parce que dañu liggéey. dëgg la dañu job quoi. dëgg la nga nga yaakaar ni ñoom bu ñu fi jógee musique Sénégal day. gën a non day gën a down. day gën a suuf ah? mais mais mais mais booy yi. booy yow loo leen di wax booy booy dañoo war a jàngi parce que tamit booy daanaka léegi da ngay gis orchestre yi dafa bari. dafa bari dafa bari dafa bari foo tourner orchestre foo tourner orchestre xam nga loolu man mun ma si wax lu bari parce que sama xarit yëpp <laughs> dañuy way dañuy way ci orchestre yi lañ nekk mais daal <clears throat> man boog man man dama am benn concept quoi dëgg la man ma ma am sama morceau yëpp ma dem dugal ko YouTube dëgg la te amul coow sax man moo ma moo ma gënal quoi mais mu am talent quoi mu am bëgg nit bu mélomane bu ko dégloo dina xam ne kii joom na dëgg la mais nga def benn affaire mu def biir yu def du pëf rek. dëgg la gars yi loolu loolu mooy xaw a yàq musique parce que tamit boo xoolee am na son yu bëri yu ñu fiy génnee. Mm-hmm. Euh, euh, euh, daanaka day mel ni AGT. waaw day génn une semaine wala deux semaines. waaw mooy li ma lay wax sànq laa rek. damay gis laay def benn affaire mu def bëm. dëgg la ma ne kii maa ko dàq. Oh. way wala dara ma dem jéem a def comme laay li mu def. ma bàyyi sama tous quoi. dëgg la. nga bàyyi sa tuus dem ci su keneen koo xamante ne nii yow loolu du sa wàll loolu mooy donc internet bi dégg ngeen ko Salif neena na Salif mm. grand chanteur mm. ah, nekk Japon Sénégal te tubaab yi ak mm. japonais yeeg chinois yi kenn mënu leen a nax ci wàllu woy parce que dañ koo xam danoo mën a woy àdduna bi léegi ñëpp xam bagage yi yéen ñi fi nekk nekk ay booy ah yéen ñi fi nekk nekk ay booy day leen jàngi way jàng musique jàng tëgg mm. parce que art boo ci nekkee lu mu mënti doon théâtre muy tout danga nga ko war a jàng ba maîtriser ko ah. Mm-hmm. Ah. Euh, euh, euh, daanaka daanaka nga defoon ñaari single xaw ma benn single album mm-hmm. dëgg la muy nekk sa premier album n'est-ce yow da ngay waaj defar beneen fii instant yi nga toll wala da bàyyi da ngay delluwaat ba après. non damay def album. nii nii nii saa bu ma bëggee def album dama koy def. parce que mi ngi ci yow. waaw waaw waaw. sama man damaa bëgg samay way quoi. même bu ma si amul dara sax su ma waree enregistré damay jénne sama. xaalis sama xaalis ma dem enregistré quoi ma investir si musique. dëgg la xaw ma kañ la mooy juróol dëgg la. saare dama yàgg gëm loolu nag. waaw parce que dama doon ànd ak gars ñu dem woy ji ay simb. dëgg la woy ji ay mbapat. di woy ji ay ngénte ñun dem di wëri ji producteur man leen man duma dem wëri producteur quoi dinaa produire sama bopp te boobu damay woyee Pikine doxee ba marché sam wala ma wala ma woyee Malika dox ñëw ñibbisi xam nga <laughs> mais loo gis rek gëm-gëm la quoi te bu ma demee ba bëgg tamit loolu noonu yàlla yombalal na ma ko quoi waa fi mu toll nii euh, euh, mi ngi noonu mm. bu fekkee da nga nekk ci benn affaire mm. di ci investir te amoo mm. ko dara nga am ngëm-ngëm donc bu ëllëgee mën ngay dox ba mu yàgg dootoo dox da ngay am loo xamante nii foo dem da ngay waaw mm. cukk rek mu tàng te macha allah mm. ah, bi ñuy ñëw fii moom moo nu indi mm. eh, eh, eh, mu nekk loo xamante nii bi mu daan dox ak léegi bokkul léegi macha allah suñu borom xaw na def kii ñuy ñaan yàlla mu gën a yokk macha allah su ko defee nga xamante nii projet yi day ñëw Sénégal mu nekk Sénégal Japon ah, ah. ah. looy looy wàcc ay concert yaa ngi wàcc ay concert fii Mm. wala yaa ngi waaj investir fii benn école de formation boo xamante ni booy mën nañ cee jàng way ngay indi ay artistes ñuy def échange ak ak ak ak sénégalais parce que tamit loolu dafa am solo ah. Mm, ah, waaw jékki-jékki dem indi ay professeurs yoo xamante ni dañ lay jàngal nu ñuy woyee waaw jàngal A ba Z waaw ñun dañu waaw parce que léegi boo xoolee aar bi mm. dan naan A B C doo egg D sax jël affaire yi rek daal di ne man mën naa te doo egg ci accords yi dëgg la loolu moom loolu moom dafay bëri mais xam nga rek am na position booy toogee doo ko mun a wax quoi. dëgg la xam nga parce que tey fii koo fi wax benn affaire bi sax dañuy naan kii est-ce que dafa soxor walla affaire yooyu. waaw mais ñun moom ñun dañuy ñun ci aar dañ ciy investir quoi. dëgg la xam nga am nañ suñu association bu tudd Afrique Culture. dëgg la borom moo ngi ne toog si ginnaaw. amul ma la ñu ñun ñëpp ñoo ngi ci yaa ngi si biir. jeex na suñu culture rek la ñuy jaay. suñu culture laay moo ngi si. waaw keneen moo ngi si surtout maa doomu waaye nag. bés bu ñu demee ba lu ñu bu lu ñuy mëbët mu antu. dañuy am suñu école boo xamante ni. laay booy bëgg tëgg laay da leen di jàngal tëgg. tëgg la booy bëgg woy. su leen saaliw doyee ñu mu jàngal leen. ñu woy ku bëgg fecc comme noonu. ñu indi fecc kat xam nga lu la dëgg la aar la culture la quoi suñu culture la quoi war ñu bàyyi. est que xam nga ni hmm. culture Sénégal dafa xaw a sooxe. non dafa sooxe parce que jàppuñu si ñu si war a jàpp jàppuñu si. ah artistes yi dañuy war a am xaalis dañu leen war a fay. dëgg la seen droit. dëgg la laay. yow xam nga lu ma lay wax baax <laughs> artiste bu si feebar léegi-léegi am cinquante ans te jooboo woon démb rek dëgg la da am problème si subaa dangay sa tànk day métti fii sax ñu lay ketal billaay dëgg la xam nga yàgg na fi voilà eh, léegi eh, nag eh. looloo tax ñu ñu commencé di perte yenn artistes yi parce que munoo toog fii gis ñoo xamante ni dañu woy lépp dem fépp am 60 ans rek benn gàllankoor dal leen rek mun ñu sax faj seen bopp xam nga yow boo nekkee xale te nga bëgg a nekk artiste ñooñ nekk sa référence ngay xool ñooñ loolu dal leen yow dëgg war ngaa mun a fagaru sa bopp quoi. am nga. waaw waaw looloo tax looloo tax gars yu bëri léegi bu ñu demee si génn di toog ak affaire yooyu parce que dangay ànd ak nit ngeen di dem di ñëw pareen saa yi nga toog ak ay mag fii nii yow xam nga ñu ne la dem naa dëkk bi dem naa dëkk bi dem naa dëkk bi te bu jógee yaa koy may 1000 francs yu duggee taxi ah dëgg la voilà loolu loolu moo tax gars yi bëri léegi bu ñu demee si àll bi di toog quoi dëgg la euh, mu ngi noonu. ñuy nuyu waa Kaaw bi di nuyu. Euh, euh, le monde entier di nuyu. jaspora bi mi ngi noonu ñu ànd ak Saliou mu nekk ndaanaan bu mag di doomu Géejawaay di doomu banlieue mën a way piir hmm? mën a way mën a way macha allah yàlla dégg ngeen ko yéen artistes yi nga xamante ni yéen a ngi ci bëgg ko dem leen jàngi ko. Hmm. jàng du wees en plus tamit ñu préparé ñun les artistes tamit di fi xew fan yi paase rek donc mën na yee ñëpp. Hmm. bi fi feebar bi ñëwee donc am na artistes yoo xam ne dem nañ bay jaay seeni instrument mais boo gëmul woon boo gëmul sa bopp rek di nga di di nga di nga di nga jaay sa ngor. di profiter la waale loolu noonu. dëgg la di wax Baye Cheikh joxe na idée bu baax nag. ba grand Baye Cheikh. Baye Cheikh joxe na idée bu baax fexe na ba ubbi groupe bu rëy dugal si képp kuy way nga dëkk géejawaay. dëgg la. léegi gars yëpp nañ ñëw ñu jàppale ko si loolu quoi parce que loolu mun naa jur lu ne tamit. initiative bu baax xam ma la. dëgg la bu ñu boolee nekk benn say. après lu ñu bëgg dañ koy am quoi. mais artiste bu bi man dama gis ni doon mu booloowul quoi. non booloowuñu. booy dañuy saaf. dañuy saaf léegi man saaf googu nag. boo demee Touba nii. bu gars yi màggal dañuy saaf ginaar yi de foofu lépp la saaf. léegi man loolu sama problème la man. Mm, mm. sama problème la parce que. Mm. damay gis léeg man su ma demee ci ci programme yi du ma fës. man derrière chaque jour. derrière yow. yow yaa gis lépp li xew voilà man li xew fan yi passé. Euh, li programme bi nga amoon. bi ma ñëwee ci derrière bi nga ma fekk. ma toog di seetaan. parce que damay gis. Mm. man damay gis parce que tamit ñun yàgg noonu nekk ci kanam. Mm, dëgg la bu yàggee da ngay ñëw ci ginnaaw jiital ñeneen. Mm, donc muy gis ay affaires yu garaaw ci ci ci kii bi lan moo tax loolu. man nag bu may nekk fii di gérer ay programme dëgg la ah di gérer ji samedi ak dimanche. dëgg la comme gars yi ni ñuy gérer dama jàpp dama lan laa daaf sama xel comme ça su samedi jotee te gérer jiw ma du du ma dem fenn damay toog sama kër quoi. dëgg amul ma la parce que xam ma jàpp sa bopp. fii ku nekk ku nga bëgg mu géewal na moom ngay engagé am na ñoo xam laay sàmb rek. moo leen géewal saf dëgg la bu ma fa ñëwee. lu ma fa def rek man maa tooñ quoi. Ah, concept boobu la dëgg la am man damay dem ah. ci programme ah. gis ñoo xamante nii dañuy ñëw uniquement. xam naa ngir yaa yaa ma gën a xam. am na yoo xam ne loolu tax sax. yow Saliou ñëpp xam nan la parce que fi nga ne. <laughs> waaw man du ma dem si ñu ma woowul. waaw yow yaa ngi ci soo ma woowee da nga may fay ma zéewal la. mooy yoon. waaw parce que dañuy job quoi ñun dañuy liggéey. lan ngay wax mécanicien bi dafay liggéey <laughs> mécanicien bi day liggéey. su waree njënte dem def lu muy def. dëgg la amuñu dara lu dul aar. dëgg la waaw laay nag suñu gaañ la. dëgg la bu xewlee ñun ñu ci mën. dinañ ko ñëw def mais mooy yoon. waaw après leneen ak leneen. joob la quoi waa la loo loo loo looy wax ci ci ci maanaam loo leen di wax booyu léegi nga xam ne Saliou day dem ñu war koo fay deux cent cinquante mille wala trois cent mille. Mhm. benn waykat bu bëgg a siiw rek noo jox ma mille. mais indi gars yi. dinañ wax ci loolu dinañ dem ba nga xam ne yow doo woy. dëgg man duma woy. dëgg la parce que ñi ñu war a defal loolu bés bu ñu demee neen ba xam ne lii ñuy def ñun amuñu ci fulla amuñu ci fayda rek. dañuy yeb nit lu muy def rek ñu naw ko si fullaam moo tax. ak faydaam dëgg la waaw mais tey boo jëlee sa li nga war a jaay. nga wanteer ko dëgg la. ah boo ko wanteeree yaa ko wanteer ah? dëgg la daanaka nag boo xoolee. <laughs> Euh, le caméraman Maodo mi ngi may jox signal daanaka mm. waxtu bi mi ngi ñuy xoj. Mm. man soo gisee may def lii. Mm-hmm. Eh, eh, sunu borom daf maa dimbali ba. Mm-hmm. man yenn yi sax du ma ci kii. Mm-hmm. mais nag li tax may def lii duma ma génn géejawaay. du ma génn banlieue bi du génn caaro yëmbal Pikine parcelle. du ma fi génn parce que ay ndaanaan a ngi fi. te ndaanaan yi damaa bëgg di leen wane. ñu leen di gis. te ñu xam ne ay ndaanaan a fi bu nu booloo nekk benn. sunu sunu sunu koñ sunu dëkk day avancé. donc mais nag gars yi nan nekk benn ah mi ngi noonu ñu àndoon ak Saliou. ah léegi yow da def moo de la fin bi. léegi concert yi. Euh, loo mën a xewle boo nu woowee dañuy ñëw assister la jàpp jàpp ci. gën ko mu am visibilité ñëpp di ko gis. ah di nuyu famille bi famille bi. waaw ñu ngi jàkkaaroog ñun. Mm. ànd ceeg bàyyi mbenn fàllu. borom borom borom Suède wala borom Suisse. borom Europa. Europa <laughs> ñëw fàllu après nga jël sama sëri ca Fallou indi sërite bi waaye. Fallou joxal sërite bi. même même yow sax danga may jox. sërite moo waaw yow laa yow waaw. waaw ndax su ma waay nga. loolu yàgg na waaw dafa yàgg. Mm. Saliou da daan way ñuy ma ne ko Saliou li ngay way dafa ma neex. Mm. moom xam na si. parce que tamit ñun kenn mënuñoo nax. dëgg la dem nan dem nan ci fu ne gis nañ mm. ci ku ne. liggéey noonu ñu ne. dëgg la ak moo tax affaire bi daal mu noonu. ñu jàppoo. ñu gën a jàpp suñu nekk benn say. pour géejawaay avancé. dëgg la ah. waaw ah, da léegi da ngay def mot de la fin. waaw maa ngi koy jox artistes yëpp. sama moroom yi sama mag yi. ñu ñu ñu ñu ñu rafetal de xol quoi. dëgg la ñu bëggante. dëgg la mais gars yi fii da gis benn laay sàmm bu romb la ñu ne ko cim bu rombee ñu ne ko xamul fu muy taxaw. dëgg la loolu dañ ko war a bàyyi. léegi léegi nga def sa bopp nga def ma noonu quoi. waaw léegi may ma benn way ci sëñ Fallou tuuti rek bàyyi benn parce que dan ma koo signalé nee na da ngay. dem na ma. màkka ndeysaan aj na màkka yaa jiire naari naari màkka ya eh, ibnu xadim moo tax ñu naan la bayka naar ya di ko gam-gamloo naan ko Mbàkke dafa amoon sunu maam yu génnoon àdduna eh, te fii lañ leen dénkoon xamatuñu seen bàmmeel ya Sëriñ Fàllu keroog lay wax ak néew ya ne ya naan ko labayka labayka laa sharika laka labayka innal amta wa ni amata laka wal munaa sharika laka laka labayka eh, ay waay kii mooma baayu afiya moom ma yee. Eh, sëñ Fallou mais mais dafa nag léegi léegi <laughs> xam nga yow yaa ngi léegi doo ma woyal deux rek ci chinois parce que. léeg-léeg man dégg ma chinois de. Ah, japonais man dégg ma chinois. mais dégg nga japonais. parce que dégg naa japonais tuuti waaw léegi ñamal tuuti parce que léegi am na benn single boo defoon. benn album bi am na morceau bi nga woy ci japon nga woy ci japonais woy moo japonais léegi damaa bëgg nga ñamal ma tuuti japonais rek. yimme mete mu sala jam faama bul ma jam faama mbete a boy. facilité war sa naw le lu ñaaw la war sa naw le lu a あなたへこの歌を届けよう広い世界にたった一人のloolu mooy la私の好きのあなたへléegi loolu mooy la loolu way mbëggeel la muy waaw sama soxna moo ko bind mais dafa ndànk way bii koo ko way da lay nopp parfois jàngal na ko après naa la ko jàngal jàngal moo ko mi ngi noonu waaw defal mot fin bi waaw tàggatoo mot de mot de la fin bi mooy ñun ay xale lañ ay jeunes lañ dañuy ut nañu bëggante laay li mu mën lu bari man mënuma ko am na lu bari lu mu mën te laay mënu ko wallaay dëgg la ñu laabalante biir quoi ñu bëggante jàppante rek te yàlla tax ndax yàlla noppi na yàlla noppi laay mi bu ma bëggee du am dërëm te yàlla def na ko milliardaire damay sonn sama xol di jeex laay xam ko te duma si may dara milliardaire la doon ci ci yàlla xam yàlla daa baax <laughs> yàlla mooy xëy jox la ndékki euh. ah yàlla day xëy nga sangu euh. mu jox la ndékki euh. nga ndékki mm-hmm. mu dem ba ci kanam daal la añ mm-hmm. nga añ mm-hmm. guddi gi mu dóor a reer ba pare may la nga tëdd ne bu soo yeewu yàlla mën loolu ba pare di xalaat xalaat yàlla moo tax daa baax <laughs> yàlla nu yàlla defal jàmm eh, eh, eh, mi ngi noonu ñu am ceen ak Saliou doomu banlieue xeebul banlieue bi fi mu toll nii mënul na dem beneen dëkk ah toog fa dem yi kenn du ko gis mais dafa am facilité dafa yaru ñëpp xamee ko calme mu baax ah, ñu ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal ah, fi nga nekk sa teraanga di yokk macha allah nga koy indi fii di ko partagé ak nit ñi te nii nii yaa ngi partagé ak nit ñi et ñu lay ñaanal jàmm di lay ah. ñaanal continuation bu baax macha allah ah. di di di ñaanal famille bi ah, ñaanal ñëpp yàlla na ngeen am jàmm amin ne leen amin amin ne leen kon mbokk yàlla na jàmm yàgg ñu nuyoo rek di di di sant di àndoon nag waa Tako TV Sénégal ak Aram mm. euh, mm. di gërëm Maodo ah léegi monsieur Cameraman di gërëm omoro bu sëñ Saliou Fallou Maya di gërëm ñëpp di la gërëm yow Saliou di la defal ñaanal jàmm ak tawféex Falloo ngi nii ah, ah borom Europa mm, Europa League wala Europa League <laughs> nga ah. des tëmbul yaama